leen nuyu di leen siyaar yéen ñiy suivre sport daañu ñëw ci benn vidéo wax ci Pape Demba Diop bi nga xam ne ma nga nekk fële ca Belgique ñu am yaakaar ak ay argument ne këlum na koy bàyyi ndax daa am lu tax daa am fu ñu ko teg bi ñëw ci Lamine Camara bi nga après ñu wax tamit ci kanam mooy Baye Malick Daaf yor xale yi philosophie bi nga xam ne moom lay doxalee euh, boo xoolee toujours moom euh, xale yi ne fii maanaam loko bi ñu ne ci championnat bi lay gën a favoriser daañu ñëw ci loolu gën kaa leeral mais da ngeen bës ko notification bi pour ngeen am suñu vidéo taaral fii sport sama gars yi ñu ñëw ci ki nga xam ne mooy Pape Demba jóob nekk meilleur terrain bu mën la muy def wala ci CHAN UV bi moom boppam bu baax a baax a baax euh, nekk xale boo xam ne franchement ñëpp ñoo reconnaître talent ba am benn club bu ko jëndoon Belgique mu nekkoon fa di fa bay waaram bu baax a baax a baax euh, club boobu nag. wàcc ci deuxième division mais mooyul xale boo xam ne temps de jeu bu ñu a wax la en même temps dañ ko bëgg a dugal ci mercato bi pour jaayee xale bi di Pape Demba léegi nag ñu ne gannaaw club boobu continue ci xale bu baax yi gëmuñu ko te bëgg nañ koo jaay ñu bari am yaakaar ne nekkee bàyyi bu nu ca coupe de monde UV ba ndax xale bu ne mën faa jëmbal fulla ak fayda ba man faa jaar am club yu ko bëgg jëm koo jënd bu ko jëndee bu ko defee mu mën a dem euh, euh, yeneen club yi mën kaa jënd ndax bu demee ci coupe du monde coupe bu baax comme ni defoon ni mu defoon ca Jeanne ba euh, club yi xel bu baax caytu ko te danga ko mën a jaay bu dee bu dee ci yeneen club yi man faa liggéey ñu ñëw ci kanam mooy Lamine Camara bi nga xam ne man ñoo wax ne waa Merch bàyyiwuñ ko fekk ci lan mooy nawloo gaynde bi na mooy seen meilleur joueur ah gannaaw mooy seen meilleur joueur nag suñ ko bàyyee dana xaw a ñoom ndax dañoo bëgg a ah, gën fula ca Ligue 2 bu France ba ndax Ligue 2 ba Merch guddi ñu ngi koy yëngal ba Lamine Camara ñëw ni ko gën a yëngal kon na xale bi neex a bàyyi donte lee na kon moo tax ñu maa Merch ñu gëm ne dañoo war a téye booy bi mais nag booy bi ni mu gëm moom moo day moo day pour jéem a teewe ci la nga xam ne mooy coupe du monde ba am na am carrière bu baax bëgg na am carrière bu luur balaa ñëw ci équipe bi te Sénégal dañoo am ci moom yaakaar gëm nañu dana jëriñ ci équipe ñu jógee ci Lamine Camara ñëw ci coach bi nga xam euh, am na benn fraîcheur boo xam ne moom la favoriser te franchement ñëpp ñu ko apprécier wala ñu bari ñun mooy Malick Daf bu ngeen xoolee buy def sélection ñi nekk fi Sénégal locaux yi la gën a favoriser favoriser malgré Sénégal am na ay binationaux ñoo bëggul 20 ans nekk bitim réew man football loolu mais binationaux yi la gën a favoriser te loolu nag mi ci def résultat ndax ci la jëlee kan hiver bi ak jeu bu rafet ak xale bi na ba ci jóge am nañu jar kon loolu moo tax tamit da kenn ndax li ma jàpp war nañoo mën a woo équipe A bi ay binationaux pour ñu gagné ji coupe du monde wala ñu def ñu dem ñu dem coupe du monde def exploit mais euh, ak U17 yi bu ñu mën ko fii ñu mën a taxaw jëmbal flag fay bi mën faa jël ko wala maa dem final nañ leen jël ndax suñu jour nekk fi teel a am succès teel a mën a jar kon gars yi lu ma nekk vidéo bi wéy di abonné di commentaire di partager di like merci beaucoup am ngeen jaajëf bu baax a baax.